mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ñu ko baaxoo woon ci waxtaan yi di am ci barabu tedd bi mooy di jéem a tënk sunu bopp ci ci weer yi nga xam ne moo nekk ci at mi weer wu ci ñëw te làmboo loo xam ne dafa laaj ak laabiri ci mbokk yi ak leeral wartif yi ca nekk loolu ci lañ tënkoon sunu bopp ca ba waxtaan wi tàmbalee ak léegi mu mel ni borom bi tabaaraka ba muy wax ca téere ba ne li mu weer yi fa sunu borom fukk la ak yaar ba sunu boroom bindee asamaan seeg ba bindee adduna ba tey waaye am na ca ñeenti weer yoo xam ne dañ leen a wormaaloon joxleen worma joo xam ne joxuñ ko ya ca des muy awtam xarit ci giw tëbaski ak wéeru tabaski ci boppam ak weeru ndey muy rajab dul qiad muharram dul qiada ak rajabul fard mu mel ni borom bi tabaraka wa taala bi bindeef yi te gën a xam daf leen bëgg a wutal ay laxasaay yoo xam ne weer wu ñëw ñu bàncaa nopp lu takk seen laxasaay ba la cay njariñ ñu mën caa jot la cay lore ñu mën caa mucc borom bi moo gën a xam ñeenti weer yooyu nga xam ne moom lañ tudd tuddee ko al ashhurul xurum yeneen weer a nga fa yoo xam ne bu ci nekk làmboo nga loo xam ne weer wudul yow làmboowu ko ku ne xam ne na rabiul awwal muy weeru gàmmo Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam feeñ ca lam làmboo moom rekk moo ko làmboo weeru caabaan mi nga xam ne moom itam daana ca wax la mu cay wax lam làmboo moom rekk moo ko làmboo weeru ramadaan nag mel ni moom du du du du du tëggante kenn moom weeru sunu borom la mooy weeru koor ku ne xam ne itam weeru safarul xeyr di weeru cheikhul xadim la mu làmboo moom rekk moo ko làmboo kon borom bi moo bëgg weer wu ñëw rekk julli it bañ a tekki seen ak laxasaay nañ ko takkaat dëgër lu bu baax a baax jëf ca weer wa loo xam ne dana leen may tuyaabo dana leen may ay njariñ dana leen may ay xéewal dana leen mën a fegal ay lor waaye bu ñu demee ci mbindi sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi moom dafay wax rek ne ja dem leen jàngi fa saari o lil ilmi ajmaina li wàcci dil jalaali qaasidina yéen ñépp dem leen jàngi kon sëriñ bi amul ay qualité ay kuréel wala ay ay mbooloo jum ne ñee a jàng ñee waru ñoo jàng ñépp a war a jàng sëriñ bi nee na ñépp daw jëm ci jàngi waaye bu ñuy dem nag na leen lenn képp tax a jóg mooy jàng ngir yàlla xam ngir yàlla jëfe ngir yàlla su ngeen demee di jàngi nag jiital leen ñeenti yëf fas yi naa génn ci ak ñaareel bi fas yi naa jëriñ bi fi sunu borom yi ñetteel bi mooy dundal xam-xam ñeent bi nga xam ne ca ci gën a màgg la mooy jëfee li nga xam su ngeen jógee di jàngi nag sëriñ bi ne la xam-xam bi ma te jiital mooy tawxid wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaq ñépp juboo nañ ci na tawxid mooy xam-xam bi war a njëkk dugg ci ab xolob ab julit moo tax sëriñ bi wax ne awalu waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min al tawxidi képp koo xam ne danga nam yàlla wala mu ci ci itaar ba gën a yaatu waaye képp koo xam ne dangaa wax ne cheikhul xadim mooy sa jëwrin ci toolub lislaam sëriñ bi ne na xam-xam ba nga war njëkk a sonnee mooy tawxid tawxid loolu nag lam luy jural mooy waxtaan wi ñu jëmee ko ci baatub tawxiid tawxiidul tawxiidullah kalimatu tawxiid bi nga xam ne ki nga xam ne moo gën a ràññiku ci weer yi muy si maam sunu Ibrahima alayhi salaatu ca làmboo woon ba maam sunu aadama ñëwee ba ci moom keneen làmboo ko lu lu nu tawlu ci tawxiid wéetal boroomam kon tawxiid moomu mooy lan yan màndarga lay am ci jëmm bu nekkee ci xolam lan mooy résultat bi nga xam ne moom la koy jural maam sunu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam jamono ja xam ne ca la nekk am na ñaari màndarga yoo xam ne moo ci gën a ràññiku ñu di ko tudd di ko tudd di tudd baatub tawxiid wéetal boroomam mooy jamono joo xam ne moom ci boppam ka yilifoon jamono yilif ne àdduna jëpp ak li ci biir mooy Namrud ibnu Kanhaan ñaari jullit ak ñaari yéefar ñoo ma sama mu àdduna Namrud ibnu Kanhaan mooy kenn ki Buxtu Nasar mooy kenn ki di ñaari yéefar ñaari jullit yi Suleymaan nabi mursal la alayhi salaatu wasalaam ak Dul Qarnayni maam sunu Ibrahima nag yàlla na too ko jamono yi Namrud la nekkoon te bàyyi boppam bi Aazara bokk ci njaboot ak Namrud nga xam ne loolu jafe-jafe la boo xam ne kenn mënu ko lijjanti lu muy sunu borom. waaye bañ demee ba nar ci moom lañu nar ci moom fës ko yee a gannaaw dafa wuute ak ñoom lu ay gëm-gëm di leen ay yibalal lañ gëm te du luy du jër du luy jëriñe du luy lore ba jox leen ci ay màndarga yoo xam ne xamal nañ ko seen bopp ñu bëgg a def taxallus ci moom ne nañ ko lakk lakkin woowee lañ ca daj ci ay waataay kenn mënu koo nettali te bàyyi boppam bi ca ca ca kër Namrud la bokk di seetaan waaye ba mu demee ba nga xam ne dugg ci taal bi képp moo ci des bakkanam bi mettiwu ko waaye li ko métti mooy kaw suuf si mel na moom moo ci kuy jaamu yàlla te sunu borom nar koo seetaan ba mu jógee fi ne ko yow képp yaa de ci kaw di buur man rek maa ne ci suuf di jaam bu lay jaamu kon moom bakkan ba nar dem yitteelu ko waaye kenn kiy jaamu boroom ci kaw suuf nar dem moo ko yitteel waaye sunu borom daal di jëfandiku yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sawara wan nañ ko nañ ko waajale kenn mënu koo wax nañ ko ca dugalee kenn mënu ko wax waaye dara yitteelu ko ci lumay may moom mu nekk jaam sunu borom boo xam ne yàlla rek la yàlla rek lay jaam yàlla rek la bañ ko ca dugalee sunu borom yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sawara adduna yépp dañoo fay waaye sawara woo xam ne làmm nga sa bopp gi daju Ibrahima nga tàkkaat sawara wa def maam sudu Ibrahima képp nag moo daal di fay waaye yaram wa ci boppam dara dara dara lëkku ca waaye buum yañ ko takkee woon dafa lakk ñu xool xool seen Ibrahima fële bu taxaw sunu borom musal ko jànkuwanteeg loo xam ne tawxiidam kenn mënu koo wax maam sunu Ibrahima dem na ba am juróom ñett fukki at ak juróom benn te amul ab takkandeer mu ñaan sunu borom mu may ko takk ndeer muy Ismaayil kero bam ko ko mayee mu ne ci fitna joo xam ne mu ne su ko lijjanti moom itam ndax kam njëkk yor saarata am naa ak moom loolu juróom ñetti fukki at ak juróom benn dund na ko amul doom euh, ci ci xalaat yi saarata jox ko ku ñuy wax xaajara mu nekkoon ci moom ca ko sunu borom joxe Ismaayil muy benn doom ci moom Demba am juróom ñett fukki at ak juróom benn sunu borom soo ko jox ab moo ko ñaanoon sunu borom waaye ba takk ba ñëwee nag xolam daldi sedd guy ndax lam doon ñaan sunu borom defal na ko ko amti lu may mu tëdd guddi gént sunu borom ne ko da koy rey taqarruban ilallah te yonent moom alayhi salaatu wasalaam seen gént waxyu la waaye ba mu xëyee daal di wax ak doom ji yaa bunay inni ya ara fi inni ya asbahawka fandur maada tara qaala yaa abati fal ma tuumaru sa tajiduni inchaa allahu min assabirin nga xam ne doom ji war na ni doom ju baax war a mel jox baayam kilifteef ci mbiram mépp rawatina bi nga xam ne baayam nabi mursal fu mu jaar rek aw yoon waaye gis nga tawxiid bi juróom ñett fukki at ak juróom benn nga am ko amub takk ndeer sunu borom jox la ko muy nox nox ci sab xol ñu xëy dex la ci ndigal loolu yi nga nar ko jëfe waaye ndigalal sunu borom jaam bi jëfee rek la ca war moo ko ca war lay doon résultat ba moom ba mu ko yitteel borom bi dana ko lijjanti ba mu jëlee doom ja ànd ak moom dem ba dara desul lu may loj def ko ni kuy loj di def tëral paaka bay daw mu jàpp ne Ismaayil lay lay rey sunu borom yebal si naajiril ma gën a gaaw paaka bi mu indi am xaaf paaka bay daw ci baatum xaaf ci paaka bay daw ci baatu Ismaayil ci la Ibrahima jàpp alayhi salaatu waaye ma ngay daw ca baatum xaaf ba Ismaayil taxaw ca gannaawam loolu loolu boobu tawxiid kenn amu koon na jiitu maam sunu Ibrahim te itam gannaawam kenn amu ko ndax Mustafa alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee. lëm gën gën gën ku dul moom sunu boom da koo digal mu jaar ci fa maam Ibrahima daan jaar alayhi salaatu wasalaam waaye xew-xew yi xew ba tey la jiitu loolu xew-xew xew ci kër ga jaxasoo ba mënatut a dëkk ak saarata ak xaajari ci kër gi mu daal di jël xalaatu gàddaay dem ba fee ca baytullahil xaraam yóbbu fa xaajara ak ismail muy radi muy kuy nàmp ñoom ñaar képp ñoo fa nekk foofa la ko sunu borom joxee ndigal ci ne ko wooteel ñi nga xam ne ñëpp dégg war nañ laa dégg ci ci baatin ñu aj si néegub sunu borom bi nga xam ne keroog ba mu wootee képp ku nar a aj ci àdduna yaa nga ca aslaabu rijaal waaye wuy wujj nga keroog wuy si nga keroog wujj nga keroog te képp koo xam ne wujj nga da nga aj si mu bàyyi foofee haajara ak doomu Ismaayil ci xur woo xam ne dara luy tooy amu fa dara luy meññ amu fa dara yu xëywal amu fa mu muy jafe-jafe yoo xam ne moom rek sunu borom moo ko mën a lijjanti waaye lam njëkk a wax borom bi sunu borom maa maa ngi lay ñaan rabbi jal haasal balada aminan washnum nii wa bani an naabudal asnaam rabbi innahunna adlalna kasiran min annaas fa man tabiani fa innahu minni wa man asaani fa innaka xafuru rahim li muy njëkk a ñaan mooy barab bii tey na nga ko def muy bërëb bu am sécurité ba noppi nag ma teetal maak sama njaboot gi buñ fi jaamuy xéram képp koo xam ne dégg na loolu te jaamut xéram moom na xam xamal na ci sama waa kër a ngoog képp koo xam ne dégg na ko te dem di jaamuy xéram nag loolu sama sa mbir la yaag moom yow ab jéggalaakoon nga ab yaramaakoon nga yow sunu borom maa ngi bàyyi sama njaboot gi ci xur wi nga xam ne dara tooyu fi dara meññu fi lu tax ma bàyyi leen fi moo di dama bëgg ñuy jufi fi taxawal julli yu juróom di ko taxaw ak di la mën a sant waaye nag maa ngi lay ñaan nga indi lu bari ci xoli bindeef yi ñu am ci ñoom yërmande te jubli ci ñoom te itam nga wërsëgaleen meññat moo xamante ne ci mën a xewlu googu ñaan na ko sunu borom nangoo kenn mës a gis ñaan gu ni nangoo rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zara'n inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu s-salaat faj'al af'idatan mina n-naasi tahwi ilayhim warzuqhum mina s-samaraati la'allahum yashkuruun tawxiid ba fam fam nekkoon nga xam ne xam ne borom bi tëlewul dara umpalewul dara jaaxlewul dara lépp lu muy bëgg a def xudra bi iraada bi ñooy ànd mu daal di sotti loolu moo ko mayoon tawxiid boobu moo ko mayoon lool yi màkkatul mukarama waxtu moom fay ñaan mooy mooy barab bi gën a ñàkk ci kawkab alaxasal kawkab waaye fi mu nekk dem nañ ba mooy barab bi gën a riis ci alaxasal kawkab dem nañ ba lañ yor ci alal xabatuñu ko mënatuñu ko contrôler ba mu nekk ci loxoy ay jaamur yoo xam ne ñoo lañ koy contrôler waaye buñ fàttalikoo ne li xiima salaat ak laalum yashkuroon moo moom la ñaanoon nañ fonk julli yi juróom di ko taxawu di taxaw bépp jullit boo xam ne yaa ngay taxaw julli te fuñ toll ñuy ñuy sant sunu borom sëriñ Saaliyu Mbàkke radiyallahu taala daana wax ne borom bi kenn jaamu woo ko lu ëpp ñaan ko ak sant ko ñaan sunu borom tàllal say loxo wax ne ko yow képp yaa fi nekk yaa yor loolu kenn jaamoo ko lu ko ak di ko sant cant goo xam ne cantuk xool lay doon ak cantuk làmmiñ ak cantuk jëf nga xam ne kum jëfalu toon dara dara dara itam ni amatul ijaat képp kenn mënu ko sant lu lu lu ko fay ñukkalam la ca topp di ca topp di kon kon sant sunu borom ak di ko ñaan daf daa wax ni kenn jaamoo sunu borom lu ko ëpp kon kon maam sunu Ibrahima alayhi salaatu ba mu yoroon ba dékkoon teeg Namruud ba sunu borom musal ko ca tawxiid ba mu yoroon. ba yor benn doom képp boo xam ne moom la amaguñ gannaaw juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn mu nar koo rey ngir sunu borom nañ delluwaat ci sunu borom nañ delluwaat ci tawxiid loolu ba sëriñ bi wax ne li xam-xam bi njëkk bi gën mooy tawxiid wa afdalul ulumi lil itlaq bil itlaaqi tawxiidu rabbina al ittifaaqi ba la ca topp na topp ca xam-xamu tafsir xam-xamu fiq xam-xamu jumtukaay yalay xamalal fooy jaar yalay xamalal ay alte waaye tawhid bi moom mooy mag bi nga xam ne bu nekkee ci xolub jullit bi lépp lu ca tegu dana mën a baax waaye bu fa nekku nag dara du mën a baax ndax dangay ngay bokkaale dangay ngay woo ci lu dul atte sunu borom di jox pouvoir ku dul pouvoir sunu borom te képp koo xam ne yaa ngi atte woo ci atte boo xam ne sa coobare tudd atte sunu borom benn mu nga bokk ci kaafiroon yi wala nga bokk ci zaalimuun yi wala nga bokk ci faasiquun yi wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayikum alkaafiruun wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayikum alzaalimuun wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayikum alfaasiquun kuffaar yi ak fusaaq yi ak salama yi ñi weddi sunu borom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne dañuy tooñ sunu borom tooñ mbokki jullit yi ak ñi nga xam ne ay kàccoor lañu kenn wérantiwul bu àllaax bu ñu tuubul ci àdduna ji bu àllaaxira fan lañ jëm te képp koo xam ne yaa ngi àttewu ci dul àtte sunu borom yaa ngi jox pouvoir koo xam ne moomu ko sunu borom huwal aamiru huwal naayi ay àtteem yim tëral lim tëral li fii moo yoon wi foofu rek mooy yoon wi képp ku jox keneen aw yoon ku dul sunu borom nag benn nga bokk ci kufaar yi wala fasaqa yi wala zaalimun yi te yooyu ku ca bokk ku nekk sab artel bu fekkee tuubaloo ci àdduna ji sab artel xam nga ko fa nga jëm kon kon tawxiid mooy fonnu mangab lépp loo xam ne nar naa jëm kër kon nañ nañ delluwaat ci at sunu borom defaraat pas pasu tawxiid ndax tawxiid kalimatu tawxiid la mu jur mooy tawxiidul kalima li tax àdduna ji ñu nekk dégg mënta am jàmm moo di kalimatu tawxiid dañ koo sàmmatul kon tawhidul kalima du mën a nekk te tawhidul kalima fu mu amul fu ne jàmm du fa am julli yëpp dañoo war a bokk benn baat bokk génn benn kilifa bokk jenn diine bokk benn téere bokk benn xibla bokk yenn yey na di waxandoo di jëfandoo su koy fekk képp koo xam ne bokkoo ci lislaam doo leen mën a not waaye bu fekkee ne mi ne kalimatu tawhid dañ koo sàggane kon tawhidul kalima dootu mën a am yàlla na sunu borom defal tawfiq nu defaa suñ pas-pas ba dëkk ci sunu borom ba dara ci sirk du ca nekk dara ci bokkaale kenn lu ca nekk jox ko li nga xam ne moom la yoyob bu baax a baax a baax bu ko defee tawhidul kalima daal di mën a am waaye te tawhidul alima kalima bu mu ta am jàmm du mën a am ci réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu